بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح الخاتم الناصر الهادي وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وارض اللهم عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim gannaaw bu ñu àndee ak yéen ci ñetti charte ci chartaay njàpp moy chartaay lislaam ak chartaay mat mukallaf ak chartaay yëgatiku deretu mbërëk ak deretu gësin ñu ànd ak yéen inchaa taala tey ci ñeenteelu charta bi wala ñeenteelu charta ci charta yi ak ya ca topp muy tahuriyatul maa'i nekkuk ndox mi di aji laab te mën a laabal jàngoon nañ ci xeetu ndox yi ñetti xeeti ndox ndox moo xam ne laab na mën naa laabal ñu ne mën nañ koo jëfandikoo ci jaamu yàlla mën nañ koo jëfandikoo ci aada mën nañ koo jëfandikoo ci jaamu yàlla mooy mën nañ caa dañal sobe mën nañ caa sangu sangum farata mën nañ caa jàpp mën nañ koo jëfandikoo ci aada mooy mën nañ koo naan mën nañ caa togg ak yu mel ni yooyu ndox mi nga xam ne meloom soppeekuwut xetam soppeekuwut cafkaam soppeekuwut ci loo xam ne dafay tàqali kooku moom ci lu gën a noot ak lépp lu nekk ci maanaam ndox moomu ànd ak détail ne détail indi woon nañ ko ndox moomu mooy ndox moo xam ne laab na mën naa laabal su fekkee dafa soppeeku nag te la ko soppi di lu laab laab na mën nañ koo jëfandikoo ci aada mënees na cee naan mënees na ko jëfandikoo ci togg ak yu mel noonu waaye kenn mënu caa jàpp nag wala jëf ca genn jëfuk jaamu yàlla moo xam sangu farata la wala jàpp ñetteelu ndox mooy ndox moo xam ne dafa sobe kooku xapp rek kon nag laab <clears throat> jàpp bala wér fokk ñu jàppee ndox moo xam ne laab na mën naa laabal juróomeelu charte bi ci shurutul wudui mooy izalatu ma yamnau wusul almaai ila aadai lwudui dañal lépp loo xam ne dana tere ndox mi yegg ci cëru njàpp yi mel ni diw gu way wala ema yegg yooyu yëpp nga xam ne dafa tere ndox mi yegg ci cëru njàpp yi des ko war a dindi bittifaqil madahibi al arbaati aha maanaa ñeenti ngir yëpp dëppoo ci loolu ndax yàlla dafa digale ñu raxas kanam raxas loxo raxas ay tànk su fekkee nag dafa am lu ne ca kaw loxo ba walla ca kaw tànk ba wala ca kaw kanam ga ba mën a tere ndox mi doo àgg raxas ga dafay wàññeeku te su wàññeekoo njàpp la du mat te su njàpp matut du baax masala ngi nii nag <clears throat> moo xam ne ilimaan yi wute nañ ci mooy su fekkee ne tilim moo ne ci ay we moo tax ndox mi mënta yegg ca cër ca maanaam mënta toyal wewa am ñu ne tajibu izalatuhu mutlaqan tilim boobu des ko war a dinde dañ ko dafa war a dañ wala yasixu alwuduu maa wujudihi njàpp du baax su fekkee ne tilim boobu dañu dindi wuñ ko loolu almutawalli min ash-shafi'iyya ak lenn ci xanaabilatu loolu lañ wax am ñu ne déedéet tilim bu nekk ci we moom baale nañ ko laa tajibu izalatuhu mutlaqan wa yu'fa anhu loolu la al imaamu al ghazali min ash-shafi'iyyati tànn ak ibnu quda ibnu qudamata min alxanabilati am ñu ne su fekkee ne la ca weem dafa nekk lu néew mu mel ni xam nga we toujours lu ci biir we xam nga tilim dafay dugg waaw su fekkee ne la ne ca weewa lu tuuti la kooku jéggale nañ ko su fekkee nag lu ñaaw la mooy dafa bari war nañ koo dindi loolooy madhabul malikiya ku mel ni ibnu daqiq al iid na ko tabaarakallaahu waaw ñu yegg ci <clears throat> juróom-benneelu bi ndax am nañ ay minutes juróom-benneelu charte bi charte bu ñu wuutee la mooy duxulul waqti ala man bihi xadathun daimun koo xam ne dafa am salas moo xam salasu mbërëg la wala salasu sawla walla salaw salasu ngalawal mooy koo xam ne fu mu toll dafay tojle maanaam mënta téye boppam sawam dafay génn toujours wala dafay ngalawle ngalawal lu bari wala sax deretu mbërëgam dafa dem ba nekk règle boo xam ne régulier tut dafay génn rek ñu koy tuddee ku jor ngel xam nga kooku boroom xam-xam yi dañoo wutee ci moom am ñu ne balaa njàppam di wér fokk waxtu julli yu jot mu jàpp soog a mën a julli ca njàpp ga ca njàpp la su jàppee lu jiitu waxtu wi di jot njàppam baaxut loolu li gën a bëri ci borom xam-xam yi loolu lañ wax waaye li gën a <clears throat> te imam malik suñu limaan wax ko mooy kooku ñu sartaal ci moom waxtu wi dugg lu tax parce que deret ji nga xam ne mooy deret ji génn ci moom mooy ki nga xam ne deretu réglam normal la tut wala saw mi génn ci ki nga xam ne dafa am su saw wala ngalawal gi génn ci ki am ngalawal eh, salasu ngalawal yooyu mënuñoo yàq njàpp duñ ko xalam ne looloy loolu seen jàpp dafa yàqoo ci loolu ñooñu seen jàppaat dañ ko sopp waaye warut looloy madhabul malikiya ndax yonentu sallallahu alayhi wasallam ne ndaw sa nanga nga jàpp ci waxtu wu ne malikiyatu dañ ko déggee ne mustahab la ndax wane ne ne ñooñu dañoo am ngànt seen jàpp tojuñ comme seen jàpp tojuñ nag ndigal la ndigalu istihbab lay nekk ndigalu sopp kon juróom-benneelu charte bi jumhur dañoo wax ne koo xam ne yow mënoo téye njàpp ngir salas moo xam salasu mbërëg la wala salasu saw la wala salasu ngalawal boo jàppoon tey pour julli tisbaar balaa tisbaar di jot sa njàpp baaxut boo bëggee julli timis da ngay bàyyi ba jant bi soo nga soog a jàppal timis naka noonu waxtu yi yëpp soo jàppee balaa waxtu yi di ñëw sa njàpp baaxut ndax yow foo toll yaa ngi toj le Malik ne déeret kooku saa yu ko neexee jàpp ndax loolu dal ko ngant la gannaaw ngant la lislaam du ko ko topp njàpp gi muy def ngir yooya duwul njàpp lu war sax ndax yooya mënta toj njàppam koo xam ne danga am sala su saw sala su saw moom mënta toj sa njàpp boo fi demoon nag douche ba pare dem douche googa moo soj sa njàpp booy jàppaat doo xaar waxtu dugg ngay soog a jàpp saa yu la neexee mën nga jàpp te jàpp loolu mën nga caa julli lu feeg leneen lu bokkut ak ngant salas ba nga am moo ko toj kon nag ñetti yooyu lañu indi woon tey muy tabarakallahu tahuriyatul ma'i <clears throat> ak izalatu muy ndox mu laab ak dañal lépp loo xam ne dana tere ndox mi àgg ci cëri njàpp yi ak bii nga xam ne des cee wuutee muy tàbbik waxtu wa ci ki nga xam ne tojam dafa sax te ñu jàpp ñu wax ne jumhur lii lañ wax waaye imam malik mi nekk ci ngiram wax na ne demeewul noonu te loolu moo gën a dëppoo ak yoon ci suñu gisin ak gisinu suñuy sëriñ tabarakallahu ñu ngi ndokkeel ñëpp beneen yoon suba mooy gàmmu gi ñun ñu ngi koy def fii ci Staten Island ñuy wax mbokk yi bëgg a ñëw yëpp nag nañ teel a ñëw ndax dañuy teel a tàmbale ak xale yi te bëgguñoo guddee lool incha allahu balaa mi nuy bëgg nañ lépp pare ñuy ñaanalante ñu ñaan ku nekk ak foo nekk rek yal na la fa yiwu yàlla fekk ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yal na la fa barke yonent bi fekk ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam hada wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuh